a'uzu billahi mina rajim Bismillahirrahmanirrahim. rahmaan rahim asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi dal chaîne youtube le Coran et ses ñoo ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku seen tey dañ leen àndil lenn ci ay secret yu am solo yu nekk ci basmala maanaam Bismillahirrahmanirrahim. rahmaan rahim képp ku bëgg am wërsëg bëgg ubbeeku bëgg kaaraange bëgg it mucc ci mbugalu del def zikr yu ñuy waaj waaye pour leeral mbokk jullit ji rekk ñaan bi moo ngi bàyyeekoo ci boroom xam bu yaatu bu ñuy naan soldaaru Sëriñ Tuuba Sàmb di nit ku baax nit ku bari xam-xam moo ko baaxe woon mbokk jullit ji bu leen ko fàttee ñaanal yàlla yàlla yokk xam-xam bi te waral cër yi laata ñuy tàmbale di leen ñaan rekk bu leen fàttee abonné ci chaîne bi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 teg ci bëri ay njëriñ ñu wax leen tuuti rekk ci ay njëriñam képp ku jàng bisimilah rahmaani rahim dix fois saa yoo jullee ba pare bu soobee yàlla doo gis malaaka yuy gàrr bi safara ñu bamtuwaat ko saa yoo jullee ba noppi jàng dix-neuf bisimilah bu soobee yàlla sunu boroom doo gis malaaka yuy gàrr biir safara képp jàng. basmala manam bismillahirrahmanirrahim, 21 fois balaa nga tëdd yàlla sunu borom dana la sàmmal boppam ba ba nga yeewu incha allah ñu bamtuwaat ko mu leer képp ku jàng bisimilahi rahman nga tëdd yàlla sunu borom dana la sàmmal boppam ba ba nga yeewu incha allah ku jàng bisimilahi 50 fois ci kanamu sa noonu maanaam ku la bëgg a yàlla sunu borom dana la musal ci boobu noonu incha allah ñu leer ñu bamtuwaat ko kep ku jàng ak bisimilahi rahmaani rahim maanaam basmala 50 fois ci kanamu sa noon maanaam ku ya la bëgg fexel ya xam policier la yaa xam agresseur la nga tari ko fois incha ya allah yàlla dina la musal ci boobu noonu. képp ku jàng bisimilahi rahmaani rahim sept fois par jour. yàlla dina defar sa àdduna soog a defar sa àllaaxira ñu bamtuwaat ko képp ku jàng bisimilahi rahmaani rahim 787 fois par jour yàlla dina defar sa àddina soog a defar sa àllaaxira képp ku jàng bisimilahi rahmaani rahim fois teg ci 100 allahuma salli ala seydina muhammadin wa bu jant bi di jóg doo ñàkk dépense mukk incha allah ñu bamtuwaat ko képp ku jàng bisimilahi rahmaani rahim 300 fois teg si 100 allahuma salli ala saydina muhammadin wasallim bu jant bi di jóg doo ñàkk dépense mukk incha allah képp ku jàng bisimilahi rahmaani rahim fois si benn jotaay fi daaw nga sa bopp maanaam dee rek moo la tere dugg aljana ñu bamtuwaat ko képp ku jàng douze mille bisimilahi rahmaani rahim si benn jotaay fi daaw nga sa bopp dee rek moo la tere dugg aljana incha allah di ñaan bokk jullit yi rek képp ku jël ci secret yi na nga fexe ba saxal ko di nga gis ay yu la yéem allah ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm yal na yàlla may gudd fan ak wér ak xewal yu yaatoo yaatoo incha allah di wax rek boo leen amee laaj bindi leen ko ci commentaire yi te bu leen fàttee abonné ci chaîne bi aimé vidéo bi ndax moo ñu may doole yàlla yàlla fay yow wasalaam.